Euh, niñ ko mën a moytoo euh, mooy dundun gu sell euh, dundun gu sell gi mu ngi ci lekk gi fexe ba li ñuy lekk ñu gën ko sellal mooy moytandiku ñam bari suukar yi moytandiku ndaw ñu bari xorom yi moytandiku ndam ñu bari diw yi loolu wàllu lekk gi la wàll tàggat yaram yi aussi ñuy fexe di tàggat suñu yaram yi Euh, mën na bañ a nekk sol blouson di daw mën na bañ a nekk dem salle de sport wala ay yëg-yëg mais doxantu xëy suba rek euh, euh, doxantu dox bu sori boobu mooy trent minutes ba sa yaram yëg ne yëngu na loolu bu ñu ko xeeb jigéen ñi nekk ci kër yi aussi bu fekkee ne amuñu activité ñuy fexe di bokk seen liggéeyu kër ak ñii ñi leen koy liggéeyal yooyu yëpp ay xeetu yëngal sa yaram la beneen bi mooy seet sa bopp parce que tamit jekk saa dem. mooy xam hôpital la mooy xam pharmacie mooy poste de santé foo mën a dem foo xam ne mën nañ fa seet si suukar nga dem fa ñu lay seete si suukar au moins benn yoon ci at baax na pour ñu prévenir suñu bopp ci ñun li ñu seetlu euh, je pense que am na étude yu ñu def ci loolu euh, maladies yi nga xam ne non transmissibles mooy ñu wax ay ay diabète ak ay tension ak obésité yooyu li liñ leen war a jox ci ay financement pour ñu mën a sensibiliser nit ñi ba ba pare mooy maanaam yée leen ci lii eh, feebar yooyu di def ak ni ñu mën a fexe ba nit ñi bañ cee dugg ak nit ñu fexe ba jël leen en charge foofu am na laaj bu bëri ci war a def yu ñu bàyyee loolu appel la pour ñi nga xam ne ñooy décideurs yi partenaires yi ONG yi nga xam ne ñooy jàppale yeneen feebar yi ñu gëstu maladie non transmissible parce que jot na ñu gestu leen